xale yi dañu def benn montage bindi ca kaw offert à nos frères mourides wane ma fi ma doon jànge xasida Sëriñ touba ba bañ ko yóbbu ca Libreville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 waaye ma di leen yëgal ni sëriñ mu Muntaqa ku baax la ku am yëg la te ku xam lu xew la ndax ñi muy defe ci gàmmu gi xam naa ñi ci tànt bi danañ ne waaw xanaa du moo fi doon yëkkat léegi façon bi muy defe ci gàmm yi daaw kenn jëkk ko indi nagu gàmmoom nam ko defee woon daaw noonu la ko defee ren boole nagu gàmmu geeg enveloppe yaag Bachir Abdul Qadir moom itam kenn ku ci nekk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 lu Seyid Cheikh terale mag ñu baax ña rek dinaa leen teral lu ni toll dama yàkkamtiwul nag ndax nekkuma ci suuratul ixlaas ma nga ca suuratul ixlaas waaw bu ko defee kon nag sant yàlla rekk